ñuy ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax lii sëriñ Modou Lo seere léegi loolu rekk moo tax ndax ku ne xam na ne xat na ndax dugg nañ ci weeru safar te mbooloo mi siyaare ak daayira yi bari na lool waaye keru ba sëriñ Modou Lo ñëwee ci moom jottali ko ne ko liggéey bi àgg na te lépp sëriñ bi àndoo ko moom sëriñ bi da ko wax ne ko fii ma toog dara bàyyi moo fi lu may liggéeyal Serigne Touba kon nag buñ ma doon teg teg ci puus puus ma ci doxi sax bu tee may liggéeyal sëñ bi na ko jëmm ji man rek kon loolu mooy ñu mu ko defee tey kon Serigne Modou yàgg waa daayira sa Safinatoul Amane bi nga xam ne yaa ko jiite Serigne bi nee na mi ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm ci sa yitte ak sa taxawaay ndax bokk bi nga bokk ci sëriñ bi. xam nga ne taw féexee sëriñ bi la ak dogalu suñu borom waaye nag doyloo woo ko da nga xam ne sëriñ Tuubaa ci liggéeyal ko rek ci lañuy ñuy moo tax nag nga fëttiku laxasaayu bàyyi sa yitte di moo fenn toog ci dëkkub sëriñ Tuubaa bi di ko liggéeyal ci lii nga xam ne mooy war may dëkk bi ndax ko ne xam ne ne sëriñ Tuubaa mboolem li mu bëggoon rek ñaan na ko ci dëkk bi di Tuubaa te lépp suñu borom may ne ko waaye nag lam waxoon ci jumaa ji rek mooy liy am ci mbiram yépp daa waxoon ne bu ngeen ko liggéey de malaayika yi dinañ wàcc ñëw liggéey ko kon nag dëkk bi itam li fi Sëriñ Tuubaa ñaanoon ci ñaan suñ borom musal ko ci dëkk bi ba wax ne wa maskani salli minal fujjaari wam noon alal ahli bi ma in jaari loolu nag sëriñ bi nee na yow yaa am tawféexi Sëriñ Tuubaa liggéey loolu ci liggéey bi mu la ci liggéey loolu it nee lii lépp ci sa loxo la sottee kon war ngaa sant yàlla bu baax te santaat Sëriñ Tuubaa te gën a fet fetli sa laxasaay te wéyee liggéey bi te xam ne day yëngi day yëngi ceeg tawféex day yëngi ngërëmum day yëngi ceeg ngërëmu Sëriñ Tuubaa kon nag Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom nga liggéeyal mi ngi ci sa kanam ndax xam na ne bëggoo ci ku la tagg rëguloo ci ku la xas seere Sëriñ képp ngay def ak seere ko ko moom mi ngi fi nekk moom mi fi nekk nag làq nga ci ngërëmam nee foo geesoo da nga mi ci sa kanam nekk sa ginnaaw di ko ànd ak yow bu faw ci lépp loo xam ne lu mu ci war a taxawe la wala lépp loo xam dégg na ko te war koo ànd yow dana ko rek neen daal bul am dara looy tiit bul am dara looy jaaxle lépp loo xam ne war na ko ci dana ko def ànd ko yow faw ndax xam na ni dara jiitoo ko ci liggéeyu Serigne Touba ndax dëkk bi kat Serigne Touba da ko fàggul boppam ñaanoon ni mu bëgg mu mel ni wax wax wax wax wax na na bëgg Touba mel ni ak lam bëgg muusal ko ci kon nag ndigam yàlla def na nga jug laxasaayu ànd ko mbooloo mii ci yitte ak pëstëf waaye jëm ci na ngeen xam ne suñu tubaab waral ci gerte kon ñu jeexal foofu kaddu yi dina la sant di la gërëm di la ñaan ak ñu ko ànd ak ñëpp. asalaamaaleykum. mu ni kaddu yi mooy yi Serigne Cheikh Bass wax rek. li ma ko waxoon li ma ko waxoon ubbeeku ko. li mu ko waxoon Cheikh Bass ubbeeku ko. dara lu dul liggéey bii li muy rëy rëy lépp. dara lu dul liggéey bii li muy rëy rëy lépp. cant gi ci war. cant gi ci war. Serigne Modou mii moo ko moom. Serigne Modou Lo mu soxna Mbène Ngabou mii moo ko moom. ndax lépp lépp suñu borom moo suñu borom ko suñu borom moo ko jaarale moo jaarale tawfiq Serigne Touba ci moom. ndax lépp suñu borom moo jaarale tawfiqu Serigne Touba ci moom Serigne Modou Lo mii. taxaw taxawaayam taxawaayam bii. ak taxawaayam bii maanaam mu taxaw taxawaayam bii. mu taxaw taxawaayam bii. loolu rek la mu ni loolu képp la kon cant gi gépp moom moo ko moom. Serigne bi nee na kon cant gi lépp Serigne Modou Lo moo ko moom. ni ko Cheikh Bass waxee léegi rek. léegi rek. noo noo ngi ci wetam. noo ngi ci wetam. di ci lépp nag. di ci lépp nag. taxawaay bépp taxawaay bi rek na mu bëggee na ko taxawee rek noo ngi ci wetam. bépp taxawaay rek nu ko sëriñ Modou bëggee. sëñ mun nee na ma ngi ko àndee noonu ak moom ci wetam. noonu rek la demee. nee na noonu rek la demee. kon maa ngi ñaan ñëpp. sëriñ bi nee bokk jullit yëpp. Serigne bi nee na ma ngi ñaan kon mbokki jullit yëpp. mbokki taalibe yëpp. ak mbokki taalibe yëpp. taxawaay sëñ Modou bii. taxawaayu Serigne Modou Lo bii. ci bëgg setal lépp lu bon lépp lu noonu mu bëgg ko setal ci dëkk bi. te ci taxaw lépp lu bon mu bëgg koo setal ci dëkk bi. taxawaayam boobu yi. taxawaayam boobu yi. ku ne ci ñun. kenn ku nekk ci ñun. na ci sant na ci sant. na na ci sant. na ci sant. te te am yéene ànd ci ak moom. te am yéene ànd koog sëñ motloo di di di di jox ko suñuy xel. di jokk suñuy xel. ñu jox ko suñuy xel. ñu jox ko suñuy xel. ak suñuy bët. ak suñuy bët. ak suñuy taxawaay. ak suñuy taxawaay. nekk ci wetam. nekk ci wetam. lépp lépp ci wetam. lépp ci wetam. ànd koog moom. ànd kook moom. ci liggéeyu Serigne Touba bu rëy bii. ci liggéeyu bu rëy bii. lii moom mënut a ñàkk. sëriñ bi nee na lii kat moom mënta ñàkk. waaye lu jafe la nag. waaye nag lu jafe la nag. kon ñun ñëpp nañ ko ñan na ko jàppale. kon ñun ñëpp sëriñ bi nee na nañ jàppale sëñ Modou loo benn liggéey bi mooy liggéey benn liggéey bi rek la muy liggéey sëñ Tuubaa ndax benn liggéey bi rek la muy liggéeyal sëñ Tuubaa te njëriñal ñëpp la nit ñi junni ñëpp njëriñal ñu baax ñëpp la te nee na njëriñul ñëpp la njëriñul ñu baax ñëpp la. nee na noonu rek la demee. sëriñ bi nee na na ko ñëpp déggee noonu. dëkk ci dëkk bi. ñi dëkk ci dëkk bi. ku dëkk ci dëkk bi. ku dëkk ci bi. ku aju ci dëkk bi foo mën nekk. ak ku aju ci dëkk bi foo man di nekk. sa yitte na nga ko def ci liggéey sëriñ Modou Lo bii. te ànd ceeg moom. la cay cëkkam kàttan. ba dëkk bi. ba dëkk bi. li ci borom bëgg sax ko te am. li ci bëgg moom dara mënu koo tee am. waaye nag liñ ci war ñun. ñu def ko ñu def ko. te ànd koog sëñ Modou Lo mii. sunu kem kattan sunu kem kattan. jërë ngeen jëf. amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin